parce que man xal euh, Sadio xam naa ko bu baax euh, yàgg naa ko suivre parce que biñ ñu ci fédération mu ngi nekk xalé bu ndaw nek ci équipe yu ndaw yi ba tay ni comportement musul changé jikko musul changer liggéey rek la xam ak mandu lolou bu doomu Sénégal agué fi dañuy kontaan bu fekkente nak nag daf cee boole qualité yi ñuy xaar ci sénégalais moy moy yiw respecté nit ni di liggéey euh, bu amé li mbégte Sénégal bi yëpp la parce que jàpp naa ni tey Sénégal ci Afrique d'ailleurs parce que yoo gis nga fii réaction yeneen pays ñëpp dañoo jàpp ni Sadio mérité na loolu. boo xoolee fii moom am na rivalité ak ak Salah mais bu ñu ko tuddee égyptiens yëpp a njëkk tàccu loolu mooy woon rek yar bi mu wane moom moom lay liggéey moom lañ ko yaree moom la màggee donc bépp sénégalais war na cee mën a contenté am nañ contentement bu rëy même si xam nañu aussi day ubbi yeneen buntu. buntu yu nga xam ni euh, Sadio tey la gagné benn titre continental bu nga xam ni euh, ci ci liggéeyam la mu des nag mu gagné dara ak Sénégal te loolu foog naa ni ubbite la parce que depuis 2002 liñ am ni tey amuñu ko woon El Hadj Diouf moo ko mujj am euh, ñaari yoon ñu ngi koy cité mu ñëw ba ci buntu ba mu daanu mais tey mu mu mu ñëw nekk ci kanam loolu wan na rek liggéey rek moo am solo te buñ ñu continuer liggéey boobu Sénégalais yëpp jàppante soreetuñ fu ñu gagné Coupe d'Afrique mérite naa ni loolu moom kenn mënatu ko natable Sadio mooy ku nga xam ni dafa jóge ci dara c'est-à-dire que euh, Bambali il y a quelques kenn xamuloon Bambali fu mu féete Sénégal mu juddoo foofu màggee foofu nekk ci kër gu nga xam ni dañu nekk ay nitu diine yu profond donc lépp luy jafe-jafe ci environnement mu mu mu mu ko ba àgg fi mu àgg moo lay wax ni fii moom. sa mën nañu wax ay Messi da ngay gis ni parce que environnement yi nekkoon mais Sadio dafa joge ci coono jaar ci coono euh, ñefe xam ni liggéey rek koy joxe donc mun nañu wax ni mérite la addina bi yëpp addina bi yëpp moo gisoon ni Sadio Mané moo koy nekk. donc amul woon sa wax naa avant avant affaire bi bu Afrique bañ a gàcceel boppam na def Sadio parce que loolu loolu la bi di xaar parce que ma def ko liggéey te mu nekk lu nga xam ni ñëpp ci teg. waaw euh, fanaan différence moom ci régularité. Sadio quand même ces deux années euh, moo gën régulier ci performance ci statistique ak côté boo ko mënta xoolee Sadio moo gën a taxaw moo tax ma demee ne bu fekkee avant ñuy def tirage bi avant ñuy def vote bi jàppoon naa ne bu fekkee ni statistique rek la bu fekkee ni liggéey kese la Sadio moo ko war a gagné. donc luy def différence bi ñëpp xamoon nañ ko c' à dire que c'est le talent pur c'est aussi les statistiques qui ont milité en sa faveur. leneen li bon man bëgguma commenter seen absence euh, ñoom ñoo am liberté seen bopp. Nous, nous, euh, bu Mahrez expliqué nañ de dafa championnat nañ ko mais Salah nous. bu ko